nag benn jigéen ju ëmb la ni du tëyee ëmb bi. salaamaaleykum merci na def. maa ngi fi rekk di jaaxle ndax weer yi ñu génn damaa gisul règle. kañ nga mujj gis sa règle. wax dëgg yàlla fàttali ko toomu ko damaa ragal a ëmb sax. est-ce que ko def texte. waaw saytu naa ko jënd naa benn pharmacie waaye daal. dama la ko rusoon a wax dama ëmb taxaw ma nu may def. léegi nag danoo war a xam ndax danga ëmb wala déedéet dangaa war a def analyse sa direct mbaa benn écho après ñu xool noo war a def. lenn moom xam naa ko jamono jii ñu toll moom yor doom waruma ndax mënuma ko. xam nga fii nii en Italie am na benn loi loi 194 loi boo xam ne dina la permettre def avortement bésu euh, 3 weer ci ëmb bi. da nga war a dem poste de santé nga xam ne ñu la expliquer noo war a def. jërëjëf ndax am na samay xarit yoo xam ne demuñu sax kër hôpital ci seen kër lañu ko defee. non non loolu moom waroo koo def ndax nekkul nekkul yoon après daa wóorul ci yow xam naa tamit am na jigéen yoo xam ne dañuy jël ay comprimer day garab te docteur bi du du ko bindee ñoom nag ñu bari ci ñoom danoo mujj dem hôpital. xam naa li nga wax. léegi damaa bëgg xam naka laay def ngir jaarale ko ci anam yu wóor yu jaar yoon. am na ñaari yoon benn bi mooy euh, avortement euh, fii ba fukki semaine semaine ak ñett ci ëmb bi nga xam nga dangay dem hôpital dugg ci suba si génn ci ngoon si ñu daldi def benn opération bi tuuti. bu dee nag ëmb bi ci commencement bi la fii ba juróom weer juróom semaine ak ñaar mën ngaa jël ay ay comprimé nga xam ne sage femme moo la koy jox te doo kenn du la def opération dangaa war a dem nag euh, poste de santé dañ lay bindi benn certificat te euh, jox la euh, information yi te jox la information yi ci poste de santé di nga fa fekk euh, ku la mën a expliquer lépp ci wolof te yow bu la neexee nga laajte loo bëgg. xam naa li nga wax jërëjëf waaye bu ma naree tëye ëmb bi te mënuma yor xale bi nu may def. dañuy commencé mère secret nga xam ne benn projet la nga xam ne yow mën ngaa eggale ëmb bi xale bi bu juddee dañ ko jox benn famille mbaa ñu adopte ko. jërëjëf léegi leer na lu may def damay jël rendez-vous wala. da ngay dem directement poste santé ndax daa urgent nga waxtaan ak benn sage-femme boo euh, boo amee tim ay loo war a xalaat yu la metti mën ngaa waxtaan ak psychologue nga xam ne dina la jàppale te euh, dina jàppale pour jël décision bu gën ci yow. Ah, maa ngi jéggalu mujjee ci situation yii de. xam nga merci boo bëgg te ëmb. dangaa war a euh, xool lu aar sa bopp dangay dem ci poste de santé ñu jox la mm, information te euh, jàppale la pour tànn méthode bu gën a baax ci yow ci sa yaram dëgg-dëgg dañ doon utiliser mbuus waaye dafa toj. ah bu dee loolu moo leen dal nag danga nga war a na jël euh, comprimé bis bu ci topp mooy pilule di giorno dopo nga xam ne benn comprimé la man ka kaa dem jënd pharmacien boo nekkee xale nag boo amee 18 ans docteur bi moo la ko war a bindi danga nga kaa war a jël bu dee euh, mbuus bi moo moo bënn euh, ci diggante 3 mbaa 5 jours. xamal na ndax mm, comprimé mu munta nekk euh, méthode bu yàq euh, bu yàq mm, ëmb bi wante mën nga kaa jël exclusivement sous urgence bu nekk benn émergence bu dee nag xanaa euh, mbuus mi moo moo xotteeku dangaa war a def benn contrôle ndax mën ngaa am nga jël benn jàngoor bu nekk ci biir sëy bi mooy MTS maladie sexuellement transmissible jërëjëf ndax boo nekkul ci sa dëkk lii lépp dafay jafee xam waaye buy suba may dem ci post de sante ba. jërëjëf merci sàmmal sa bopp.